fen te képp ko fa dem yaa fa yóbbu sa bopp coalition Yewwi Askan Wi ci biir journal bi nee na jamono ji nga xam ne tension politique bi maa ni cobbay ci réew mi bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkaan am lu bari loo xam ne yàqu na ci réew ji lañ waroon a taxaw di wax lu jëm ci wàllum dialogue national naam sax ñu nangu nañu ne lii ab dialogue waaye ay caaxaan ak tappale la ak dil la coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu jamono ji maanaam lu toll ci juróomi téeméer ci ndaw yoo xam ne ñoo ngi ci police ñi ñoo nga gendarmerie coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu jamono ji Ousmane Sonko moom tim ma ngi ci résidence surveillée te nag coalition Yewwi Askan Wi dafa am ay sart yoo xam ne dafay tere maanaam jege yantoo ak Macky wala ngay lëngoo ak moom wala ngay dil ak nguur gi wala ngay baara yógoo ak nguur gi te képp koo xam ne jal jalgate nga sart yi maanaam lu ci mën di am nga jël ses responsabilités dankaa fu nañ Khalifa Sall naam tudd ñu turam nag waaye li ñu wax moom Khalifa Sall moo ko moom journal bi ne dañu ko avertir yéen kaay gi di bés bi nee na ginnaaw bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi ñoom génn nañu seenub communiqué Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal taxawu Sénégal ñoom ñoo ngi tontu jamono ji ñoom tim yéen i kayi gi de la témoin nee na dialogue national bi consensus am na ni ki démb ci maanaam lan la ñuy waxtaanee lan la ñuy teg si taabal ji démb nag juboo nañ ci kawi kàddu yéen i gi nee na suba ci àllarba ji la liggéey yi commencé fast track lañ koy def ndax dañoo bëgg mbir yi gaaw yegg balay la 25 ñu def conclusion yi jébbal ko Macky Sall journal bi di Rewmi Quotidien xëy génn ñu Dakar yóbbu ñu diwaanu Touba ak bureau de vote yi nga xam ne càkkute fu sëriñ bi mooy ñu génn ko ci dëkk bi yóbbu ko feneen journal bi nee na conséquence yi dana bëri loola jël xanaa waxtaan ak sëriñ bi waaye li am des sa yi ban doxalin la ñu ba sëriñ bi jël yi la décision yi ba tey moom Assane Samb ci biir journal bi nee na naka téerewuñu askan wa ñu voté waaye bureau de vote ya la ñu wax ne nañu ko génne Touba enquête yéen xëy di ñu xibaar naan ginnaaw dialogue national bi nga xam ne sumb nañ ko ci réew mi bu dialogue bi weesoo Macky dina def ab remaniement dina bëri ay ministères yu rëy yoo xam ma nationale ba ñu jëlu leen yóbbu leen sa kaso ba di Mamadou Niang ak Massata Samb libéré nañu leen yéen kay gi de Le Quotidien yor yor nee na ci kaso bi jamono ji bëri na ñoo xam ne ñoo nga faa am na opposant yu bëri yoo xam ne teg nañu leen loxo dugal leen ci kaso bi bëri nay journaliste yoo xam ne teg nañu leen loxo dugal nañ leen ci kaso bi bëri nay artistes yoo xam ne teg nañu leen loxo dugal nañ leen ci kaso bi bëri na ay influenceur ñoo xam ne ñoom tim teg nañu leen loxo dugal nañ leen ci kaso bi yéen kay gi de L'Observateur nee manifestation yi nga xam ne moo fi amoon fan yi ñu génn ca université Cheikh Anta ak la nga xam ne moom lañ fa jot a yàq am na ñett ñoo xam ne njort nañu ne laale nañu ci teg nañu leen loxo ñaar ñi ñoo nga jóge woon ca diwaanu Ziguinchor kenn ki étudiant la boo xam ne fac médecine la nekk yéen kay gi de libération nee na Olivier Boucal mi nga xam ne moom la ñu tegoon loxo ca AIBD am na retour de parquet jàpp gaa ngi mel ni tulleeg male ca diwaanu Goudompo libération mooy xëy di wax nee na ca Goudomp bëri na ñoo xam ne teg nañu leen fa loxo journal bi nee na blocus bi nga xam ne moom la ñu def kër Ousmane Sonko jéngu ko ba du génn ak téléphone portable am yi nga xam ne dañu ko nangu ak MacBook Pro boobu journal bi nee na nag loolee tax na ay avocat ma daan nañuy saisir cour suprême ngir Ousmane Sonko ñu dindi blocus bi waaye téléphone yi ñu nangu ñu daal di koy delloo yéen kaay gi de Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo bëri gi ñu bëri loolee moo tax ñi nga xam ne ñooy attekat yi jamono ji dañoo débordé kaso yi tamit jamono ji fees na dell boo demee police ak gendarmerie dafa occupé y a kaay gi di Vox Populi nee na ca manifestation yooyu ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum pétrole ak wàllum gaz ñoom nag wax nañu jafe yi nga xam ne am am nañ ko ci ndax total Sénégal lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñaar ci station yoo xam ne dañu ko yàq am na lu toll ci fukki boutique tamit yoo xam ne yàq nañu ko Vivo Énergie lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci point de vente yoo xam ne dañu ko saccagé yéen i kaay gii di Le xëy di xibaar naan ñu njiitu réew di président Macky Sall daggal na salaire ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi weeru jot yéen i kaay La Tribune nee na lii nag forme de corruption jubloo mooy jéem leen a charmer yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu Sénégal bor yi bëri na loola lu jege douze mille milliards yoo xam ne Sénégal amee na ko ni bor yéenekaay gi di Source A xëy di ñu xibaar naan ñu ca diwaanu Fatick lu doy waar moo fa xew ndax dafa am benn saltige boo xam ne Pape Biram boob la tudd ñëpp ràññee ko da doon testé benn paaka maanaam di wax ne moom dafa beleende waaye nag sel mujjee ñàkk bakkanam bi muy jam boppam yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na gendarmerie ñoo ngi nettoyé Almadies bandi yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb yu ñuy defee lu bon ñooñu ñëpp waa gendarmerie